ban appréciation nga am ci situation bi ñu toll actuellement. waaw bon c'est un ouf de soulagement parce que véritablement Sénégal tolloon na si diggante yu nga xam ne gudd bu bët sa gudd. véritablement euh, le conseil constitutionnel a joué son role parce que euh, président de la république jëloon na benn yoon bu nga xam ne jaaxaloon na ñëpp parce que ñëpp jàppoon nañ ne incha allah euh, le 2 avril. day def passation de service entre moom ak le nouveau président de la république nga xam ne Sénégal yi dañ leen woowoon par décret le corps électoral pour ñu dem ci élection yi pour mun ko fal dab le premier tour le 25 février mais malheureusement ce qui s'est passé par des acrobaties yu nga xam ne kenn xamu ko président de la république dévier le chemin bu nga xam ne suñu démocratie foofu la waroon tegu indi leneen mais heureusement le conseil constitutionnel a véritablement joué son rôle mu nekk un climat d'apaisement et de discrétion euh, du jeu politique nga xam ne moo indi tey des libérations de certains détenus ko appelle des détenus politiques nga xam ne c'était juste des manifestations la lañ jàppee donc c'est un vent d'apaisement de stabilité du pays la xam ne képp koo xam ne démocrate nga képp ko xam ne sénégalais da ko war a rafetlu donc ñun en tant que grand parti ah le leader le président El Hadji si loolu la ñu nekk mooy appeler à la stabilité à la sérénité dans ce pays pour ñu mën a dem élection dans les meilleurs délais comme le conseil constitutionnel nu mu ko waxee mais dans les meilleurs délais tamit c'est toujours encadré passation de service war nañ ko def le 2 avril incha allah. yaa ngi rafetlu liggéeyu conseil constitutionnel d'accord euh, mais sauf que gis nañ ni recalé yu bëri. Hmm. ànduñu ci décision bi justement. waaw mais xam nga on a dit nous sommes dans un état de droit donc le conseil constitutionnel euh, ses décisions amul recours. conseil constitutionnel décidé na que dañuy dem euh, vingt avec les vingt candidats donc loolu valeur juridique la tous les démocrates tous tous les sénégalais doivent se tenir à sa te président de la république si boppam moo waroon jàpp loolu ñu dem si élection yi donc ñun lu ñu jàpp mooy ne dañuy dem élection avec les décision du conseil constitutionnel nga xam ne réaffirmé na ko davantage que incha allah rabi ñu dem ci élection ak décision bu mu génne woon le 20 janvier 2024. incha allah d'accord